Bonsoir tout le monde. Politique, politique occidentale a détruit mon Afrique. Politik, politik occidentale a détruit. bonsoir les gars xam nga rek léegi foog vidéo yi di gaaw affaire yi daal metti dëkk bi tey il va falloir que affaire yi gën a leer. ñu naan business des trois mousquetaires toujours le triangle des francs-maçons triangle imam Macky Idi même jour mais avant tout ça je veux apporter des éclaircissements sur la déclaration de maître James déwénati sama gars <laughs> sur la déclaration de maître maître James mais effective effectivement à l'intérieur des pyramides il y avait de l'électricité il y avait de l'électricité effectivement mais James devait expliquer comment expliquer vous les jeunes allez dans les zones où il y a le zircon vous prenez vos bouteilles là vos bouteilles des bouteilles bouteilles bouteilles normales bouteilles de boisson ou vous coupez vous mettez un peu de sable qui contient du zircon en bas vous posez là-bas vous mettez un bougie quand vous fermez la bouteille vous mettre de l'or en haut. Allumez cette bougie-là, ça peut faire plus de 6 mois, 7 mois. Si, à l'intérieur des pyramides, pour un bout de bois, des Égyptiens arrivaient à l'allumer pendant 6 mois d'affilée, pourtant il n'y avait rien, les rentrées, tout rentrait, mais c'était les mélanges. En haut, il y avait de l'or. mélangé avec de lithium. Mais les Blancs, ils ont fait tout ça. Mais donc, pourquoi s'acharner sur Dims Qu'est-ce qu'il qu qu y a Mais c'est l'Égypte qui a découvert l'électricité. Parce que l'Égypte, là, l'eau, l'eau était bloquée vers Canaan. Canaan, c'est vers plus haut, vers Israël. Donc, quand Ramsès II, pour vous apporter l'histoire, et l'électricité et, et la civilisation est venue d'une femme. Ramsès de n'a jamais été un homme. Beaucoup de noms existaient avant l'islam. Beaucoup de noms existaient avant l'islam. Les Ramatoulaye, Roqiyatou, tous ces noms-là existaient avant l'islam. Donc Rama Toulaye, les petits là, ça existait avant même Abraham. Le Ramatoulaye, ça existait avant. C'est cette même Ramsès là qui a débloqué le Nil, qui a creusé pour que le Nil passe vers l'Égypte. Et en ce même moment, parce que lui, il a, elle a perdu son mari. Son mari était un très jeune pharaon qui a succédé à son père. Quatre, quatre ans après, on l'a empoisonné. Mais Ramsès l'avait caché pour succéder à son propre mari. C'est une femme, Ramsès. C'est une femme qui est, à la de... qui est à la tête de cette civilisation qu'on nous parle. L'électricité existait bien avant Jésus-Christ, en Égypte et en Afrique. Mais comment Savez-vous qu'en Égypte même, cette terre-là, pourquoi les Israéliens l'ont récupérée C'est que faut se dire la vérité. La découverte n'est pas blanche. La découverte n'est pas occidentale. La découverte, elle est noire, typiquement noire et typiquement égyptienne. ces habitants d'Égypte là les blancs la eux ce ne sont pas des Égyptiens pour commencer c'est des immigrés mais Ramsès était noir tous les pharaons étaient noirs je vous dis chaque jour c'est Moussa qui a montré la première peau blanche mais ça y dans le Coran dans dans la Bible ça y est partout c'est Moussa en faisant des miracles il a sorti comment mais si tu es blanc comment tu peux sortir une main blanche pour faire des miracles là-bas il n'y a pas Donc Moussa était complètement noir. Comment il a surpris les imbéciles des pharaons là Il a sorti une main complètement blanche, rangée encore. Mais pourquoi on ne vous cite pas Même dans le Coran, on a enlevé cette partie-là. Moussa avait sorti une main noire. Même dans le Coran, on a sauté cette partie. Pourquoi on le saute Qui l'a sauté C'est pas le prophète qui l'a sauté. C'est les écrivains qui l'ont sauté. Même dans le Coran, y a des parties qu'on a sautées. Sur la peau noire. aywa mais le Coran l'a dit non Moussa a sorti une main blanche tout le monde était étonné ah mais donc Moussa était comment il n'était pas gris il n'était pas rouge c'est un kémite James a parfaitement raison Égypte c'est 4500 ans avant Jésus-Christ mais 230 non 2500 ans avant Jésus-Christ l'électricité est née en Égypte Ça, c'est vérifié. Ça est dans les textes, les blancs longs. Mais pourquoi Donc, c'est un noir qui le dit, ça dérange. Parce que c'est James qui le dit, ça dérange. Mais c'est bien fait, hein? Les meilleurs athlètes, si c'est un noir, tout le monde applaudit. Les meilleurs danseurs, si c'est un noir, tout le monde applaudit. Mais le meilleur savant, Cheikh Ante Diop noir, injection piqûre mort, par qui Abdou Diouf. Il y a des secrets même qu'on dit James a parfaitement raison. L'Égypte a découvert l'électricité 2500 ans avant Jésus-Christ. 2500 ans avant Jésus-Christ, il y avait l'électricité. Composée en haut, vous, s'il vous plaît, essayez ça, surtout vous qui êtes à Ziguinchor. Mettez zircon dans une bouteille. En haut, mettez de l'or et un peu de lithium. Vous verrez ce que je vous explique. Même si tu n'as pas de lithium, mets du zinc. Tu verras que cette bougie-là, tu peux l'allumer du mois de janvier au mois de septembre. ça ne va pas finir ça comme ça y' a pas ma ne la ça ne s'éteint pas et c'est vérifié dans l'histoire cher Blanc cessez de mentir vous n'avez rien découvert même Algérie bu convenu que c'est Al Jabrou c'est archi faux les mathématiques étaient là avant les religions c'est pas un musulman qui a créé les mathématiques les chiffres étaient là tout le pyramide là c'est des chiffres qui l'ont fait Moi, quand je om on me dit que non, algèbre, géométrie, c'est aljabrou, c'est alni. C'est faux. C'est des calculs complètement égyptiens qui datent de l'Antiquité. Même avant l'Égypte, il y avait des calculs dans l'empire de l'Éthiopie. Mais les chiffres sont nés avant les... Mais quand même, il faut qu'on se respecte. Les mathématiques, c'est pas Einstein, c'est pas Victor, c'est pas Pythagore. c'est pas Thalès c'est pas eux c'est archi faux archi faux archi faux ah, c'était dans les empires depuis l'Éthiopie il y avait des calculs depuis l'Éthiopie il y avait des calculs mais donc comment l'empire d'Éthiopie après l'éclatement de l'empire d'Éthiopie comment ils ont fait pour fonder l'empire d'Égypte jusqu'à tracer l'Égypte jusqu'à Tombouctou comment les Canaan mais comment faut qu'on se respecte man les travaux li mais ils l'ont trouvé en Égypte les gratte-ciel que vous voyez là mais ça y est en Égypte mais les rues les rues égyptiennes étaient déjà électrifiées avant l'ère des ans en 2700 2800 avant Jésus-Christ ça veut trouver que les rues égyptiennes étaient déjà électrifiées parce que à cause du barrage qu'ils ont décollé qu'ils ont cassé à partir de Canaan pour que ça rentre vers le Nil. Il faut connaître l'histoire, il faut qu'on respecte les Africains. Ça, s'il vous plaît, coupez cette paragraphe-là et passez le mois au blanc. C'est la merde que nous font là, cette presse qui n'a rien compris, cette presse utopique de merde. N'a rien compris cette presse, cette presse blanche-là. Tout le monde s'acharne sur... Mais il a raison, vous n'avez rien découvert. Vos grands-pères n'ont rien Pourquoi on dit des blancs aux barbares Ça vient du nom barbare. C'est vous-même qui vous êtes déclaré barbare, pas nous. Et les Africains n'ont jamais vu de qui. On descend sur Ramsès. Tu sais que l'arbre géologique de Ramsès a répondu sur les blancs l'ont cherché jusqu'à venir cueillir à l'université Diata. Et un secret. Personne ne va vous montrer le corps de l'université Diata. Elle n'a pas été assassinée. elle n'a pas été assassinée. Après, je ferai un document spécial sur Aline Suite J'ai appris des choses qui m'ont fait pleurer. Parce qu'il y a des politiciens sénégalais qui sont allés jusqu'à Tombouctou, comme Lamine Gueye, pour dialoguer avec Aline Suite Parce que sa maman était Bambara. Regardez-moi cette honte. Maintenant, on parle sur le deal. Imam, imam bi dañ ko xiif la ba muy ñaan mille francs ci jumaa ji imam bi wax na ba Antoine Diome maire mu ne donc du samay wax waxi yàlla la gars yi imam bi buñ ci tardé dil bi mooy suba si imam bee ubbi baal bi tey foog mu ñëw ci sa Seck parce que sama grand ndir yow laa doon ruus mais dafam am dil bu ma bokkoon boo xam ne moo tax ni gars yi kepp Idrissa Seck gars yi Idi 2012 ak yooyu il n'a jamais voulu jamais je vous dis jamais ñëw liggéey ak Macky Sall jamais. Idrissa Seck Aly Ngouille Ndiaye moo ko dugal APR. Marème Faye Sall am na lu la rëcc moo tax tey laa la koy wax na la gars jox affaire bi vidéo bi nañ la ko jox Idi entre 2012 jëm 2015 avant Macky di wax ne day def sept ans la lay wax de nay leer avant Macky di wax ne day def sept ans <clears throat> boobu ñun MFDC yëpp ñu doon jàppale Macky kërti kërti faral ko avant muy wax dafay def sept ans Idi def nañ lu ne Idi boo ko daan wax waxu Macky Sall da lay woon ne dama ko xeeb il méprise Macky Sall Idrissa Seck ku méprise Macky Sall la ku bañ Macky Sall la il déteste Macky barki sëñ Bamba lu may wax nii lu ma leer laa la Idi bañul ku dul Macky Sall Idi tey boo ko joxoon paaka mu wéet ak Macky Sall da koy rendi Idi bañul ku dul Macky yenn wax yi muy wax yëpp sax jarul koy wax mais li andi mburoog soow bi avant deux mille dix-neuf Aly Ndiaye dañu peese carte gi deal bi 2017 la commencé boobu may woon Sénégal xam naa bu baax lu may wax idi dañ ko njëkk mbaal mbuur ak jigéen jàppuñu ko mais leer de mbaal nañ ko mbuur jàppuñu ko mbaal ko États-Unis ci hôtel jàppuñu ko mais fin 2018 xam ngeen fu ñu mbaal Ibi jàpp ko Dubaï Dubaï lañ jàpp Idi mbaal ko jàpp ko avec une belle mooy shot girl yooyu kooku waaw shot girl Idi la bu nekkee Dubaï Idi femme boobu lay nekkal jaruñu une très belle fille Une très belle fille, oui. Oui, une très belle fille. Dieu vérité. xale boobu Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye je bien mais moom bi muy teg deal bi Macky yëgu ko cinq cent millions de francs li ñu yónnee xale bu jigéen bi pour mu andi leen vidéo Idrissa Seck ñoom fu ñu xoj Idrissa Seck lan moo tax bi Idi duggee rek 2021 ma xëpp ci kaan yi 2022 warul dugg warul dugg ñëpp naan ma grand yow Macky ngay liggéeyal mën leen déedéet Sénégal laay liggéeyal parce que kii li muy pareel Macky Sall da koy rendi far nag léegi nag Macky dafa naroon fipp far Aly Ngouille Ndiaye pass ko film bi moo tax tey ma ñeme ci wax ndax xam naa ne sañ nañ ko génne ay daamaraam lañ waa APR dañuy waraate Idi premier rendez-vous ak gel ne ndeysaan ñu waxtaan affaire bi neex boobu ñu ngeeg vidéo yi Aly Ngouille yi mais bi ñu toogee ci hall bi lekk ba pare yéeg si chambre bi comme idi gel bi gelam la laxasam la bu demee foofu ñooy nekk mais cette fois ci dafa def yëfu ngàkk dugg si douche bi pour dem préparer wu gel bi placé caméra bu may woon Sénégal ñu jël ko en live nee naa leen sama cellule la ñàng ñetti ñi a yëgoon affaire boobu man du ma ñëw ñu ñuy toog jox leen information ñii kii moo tax ku ne amul information rek daa fekk bokk woon fenn fi mais ñun deal bu nekk teg nañ ko Sénégal deal Sonko bi ñoom ñoo ko échec que ay civil lañ ko jox <laughs> da ngay échec boo soxoree rek échec idi bi mu duggee si douche bi gel bi placé xam ngeen lu ko gel bi def appel vidéo whatsapp de appel vidéo whatsapp sur la woote placé portable bi Aly Ngouille Ndiaye yore toog si bureau bi père Aly Ngouille Ndiaye boo buggee sax deuxième om bi Mahmoud Saleh la troisième homme bi su leen ne man la rek di ngeen xam kan la ndax xoola ah, rey ngeen ko amu leen sens yéen a yéen a rey sama père bi xam naa foogoon ngeen ne ma joxuma document yëpp dama gis tey benn kele bu ma joxoon kele yoo xam fàtte woon naa sa affaire bi tey laa ko dugal rek ma yem ci kele bi ak sama paa bi di ma tegal di ma yuuxu te pourtant yéen ko rey poste caaroy accident ba tey amagul xamaguñu kan moo ko rey moto ko mbëkk dee na point un grand agent de renseignement un adjudant pire adjudant un grand agent de renseignement mais deewam dafa ñun idi génn si toilette bi gel bi wax naa ñun ba pare def lu muy def mais xam ngeen ne idi gel bi da ko doon pip nu ko boy di waxee chiffon waa gel bi da ko doon chiffon gel bi da ko chiffon ba mu bàyyeeku mbrrr da ko chiffon lu metti laa la wax nii balaa gel bi pare daanu na duma ma yeggali res beeg li xew si néeg beeg idi jëfaru beeg naan ko roqee yaag firaw na moo la moomoon nag mbaam la doon tëddal rek xam nga rek bu la jigéen jàppee lu ne ngay wax lu ne ngay wax gel yi moom am na fu ñu la yeew lu ne ngay wax dama ne woon du ma dugg ci vie privée mais Idi ngi saltel ñëpp a ngi wax nekk ñoo xamuñu lu ko dugal APR Idi mosul bëgg a dugg APR ko bëgg mosu ko xalaat ni gouvernement Macky Sall lay doomee xaram dafa am fu ñuy jaar gaa yi gis nga ñu ngeen gis ñu rangé wu Alioune Sow sax moom moom far nag moom Alioune Sow professeur Alioune Sow doomee xaram bi moom vidéo ay yéeg-yéeg moom lay def moom moom comme bay la mel ndekete ñu yeggala ci Idi Alioune Sow il ne m'intéresse pas c'est un petit type toog Dubaï xappi ay xappeem ñu def sondage 2019 bi ñu doon waaj dem gars yi gis ne Idi dafa nar waxax Sonko yokk booy bi doole Macky Sall woolu Idi Idi bañ na ko man sikku maax yow wax ndax maa war nekk président Aly Ngouille Ndiaye yëg coow li yónnee vidéo bi sa Seck Aly Ngouille Ndiaye moo ko yónnee vidéo bi ne ko élection yi quel que soit les résultats xoola ajul ah <laughs> grand bi ruux siiru waaw mais 2019 billahi Macky Sall gañewul de Macky dagoon dem deuxième tour mille 2019 mais xoola Macky dafa xool Idi ne ko lii nga am mu ne waaw ñu jël ci ay kiiwam def ko si Macky Sall mais co est-ce que coow na 2019 li muy wax ni c'est archi faux de c'est pas Idi qui parle dañ ko waxloo Idi qui parle loolu moo indi ñu dem ba daaw xam nga nee na Macky ko woo c'est archi faux Macky dafa woote dialogue Idi toog ngeen déggatu leen ko ñëpp fu Idi nekk fu Idi nekk fu Idi nekk mu ngi dégganteex Macky déedéet Aly Ngouille Ndiaye da ko chantage ba pare bàyyi ko ci biir ba bi mi Touré bi ñu war a remplacer Mimi Touré ku leen na makkee woo Idi day fen Aliou Ndiaye lan moo tax mu dellu si waat ci gouvernement bi Idrissa Seck moo ko dellu si waat ndax mooy président CCS bi Idrissa Seck moo ko fayee bor boobu may leer rek dëgg moo ñu somal fu mu toll nii foog lépp feeñ du wax ci fii privé mais tey foog mu leer parce que sinon Idi jaxase carte gi Sénégal yëpp commencé nañ jaxase carte gi a rien Idi bi léegi nag lan moo des ah il fallait que mu dugg ci gouvernement bi parce que Macky da ko ne da ngay dugg booy dama la sox dama la soxla si gouvernement bi mu ne ko non man parew ma élection yi gauche mu ne ko grand dama la soxla si gouvernement bi voilà il di rejoindre lii moo ko dugaloo gouvernement bi mu ne leen lan maax Macky comme mburoog soow bi mu defee déclaration boobu deux jours après def naa vidéo saaga ndeyam bay jooy ma ne leen bàyyi leen idi mu dem xam ngeen jour boobu bi mu demee këram il était hors de lui mais dafa jékki-jékki réer pour wan leen saay-saayu Idy en live téléphone mu ne lan xam nga mu soow ñu ne waaw mu ne leen gis nga ponse gis nga soow dafay joxe bu bëree sa yaram xam nga dalay lay gonfle xam nga ponse da ngay gonfle mu ne waaw gars yi ne ko waaw mu ne gis nga Macky suukar su bëri laa ko ci yokkal ndax mu jabeet veille élection bu jabeetee ba am góom dañuy dagg tànk bi su boobaa du dem pour pourtant waa APR ñu ngi fogoon ne xoj nañ ko Idy paral na leen woon coup boobu Karim Wade jaxase carte gi fu mu toll nii Idi sa pare wala ko Macky de Macky ko ne yee eh, dugg ci opposition bi pese kanax kanay opposant defar na beneen paf fi mu jiite woon am na fa kër kër vingt deux milliards ñu jël dossier bi yónnee ma ko ne ma dossier bi Mimi Touré moo ko am heureusement du teel a wax ma aju rek bañ <laughs> ma aju rek ne Mimi Touré non Mimi mënul def paxu 22 milliards mënut a nekk effectivement mënut ta nekk Idrissa sekk si boppam moo am paxu 22 milliards bi. moment bi nag Macky da ko ne grand mun a mun ko da ngay génnee xaalis bi dem campagne opposition bi jëlal genn wàll gépp tas leen. Idi bu ne Macky waxu ko ndax day def troisième mandat wala lu def troisième mandat Idi da ngay fen sa baay day fen. yow xam nga bu baax lu may wax dangay fen sa bàyyi day fen tu mens boo ni dëkk bi état de droit nga demal wax ak Sonko ak muy doxee dangay fen li ma wax nii tey si live nii xam nga Bassirou Diomaye fay lan moo tax ñu tëj ko Macky moo bëgg xam lu ñu wax si live Macky na sa xel dal li ma la wax nii Idi wax na ko Ousmane Sonko boppam la fa njëkk waxal pour expliquer ko ko ne moom comme quoi ne yéen da ngeen ko teg deal boo yore vidéo woo moo tax mais mosta ànd ak yéen Idy vous a trahi keroog wax naa leen ko ci live bi yëg naa leen mais xoola saa yi wax du ma neex mais bu Idy commencé exagéré ma wax Macky Sall diil Macky ñëw interview si guddi gi nag foog ma wax xam lan moo dugal Idy ak jabet bi mu bëggoon teg Macky Sall dagg tànk bi far nag ma maye nag Macky Sall nga yor paaka bi ni nii xam nga lan moo xewam vidéo Marème Faye Sall lu yàgg bil daa yi ñu ñooy Aly Ngouille Ndiaye yaay doom ram Marème Faye lu yàgg mu ngi laajte moom lan motiver sa Seck ba mu dugg si si biir APR lan moo ko motiver ba di ko sukkal ak di ko raamal Marème fay lii la ñoom Aly Ngouille Ndiaye max Mahmoud Saleh def sa Seck ak sa jëkkër ngir dugal ko APR mais idi gëmu tey gëmu leen suba moment may nag rend na boppam rendi waale sa jëkkër alhamdulilah idi foog ñu rendi ko politiquement il est mort Macky Sall nag discours am bi lenn rek laa ci jàpp lenn kese laa si jàpp lu ma metti moom maanaam boo résumé discours bi mooy moom moment bi je ne vous le cache pas xam na ne mënatul dem ndeysaan il a montré que ne moom tactiquement et techniquement c'est fini foog doole yore réew mi ku dem ba réagir ne foog doole yor réew rek c'est parce que tactiquement techniquement xamatoo foo jëm nit bu demee ba mer buy dóor xeex ak ku mer yow nga moo gën neex ndax da koy dóor ay coups direct moom muy law nga koy dóor di toj kanam bi muy law moo xaw a dal Macky Sall nii ñoo te Macky sax effectivement perte na makki bu ne Sénégal amul prisonnier politique Macky mu ne Sénégal amul prisonnier politique kaaw Thioré Mandela rek wane na am na ay prisonnier politique mu ne Sénégal état bi soxlawul dialogue gars yi nag boobu foog ñu def si nànkate jaloog bi def leen si nànk Macky Sall di junj mais dialogue bi sa Seck moo koy def te dina yóbbaale ñu bari ci opposition bi def leen nànk ci dialogue bi te dialogue bi Sonko yàq na ko ba pare ndekete lan lañ ko wax bàyyil état bi bàyyil juge yi bàyyil bi mu génnee Ziguinchor julli juma ba pare wax aqulay taala am tax dafa répété li mu doon wax mérité ko c'est ça la Casamance ñu ngi dellu ginnaaw chaque jour moo wax leen ko amul fen buy defar moo gën dëgg buy yàq ja al àq wa nigmal baatinu Macky Sall wax kenn laaju ko ci Casamance mu ne waaw waa Casamance bii paa dem leen ni ñaan jàmm ah parce que temps yi maa lay akkalu ba sa kilifa yu bëri di ma yow baadoo la nga ñun sekku ñox te yow jàmm te tey laay révélé dëkk bi loo leen xamul woon gis ngeen bi armée dooree àll bi 24 janvier bi Ousmane Sonko waree nekk maire dugg dóor ñu coupe du bois ne leen non jël nañu gaa yi jël nañu base rebelle yëpp tey ma waxati leen doo mosul dégg dañuy fen dañuy fen dañuy duul dañuy fen ka gës leen jël te yooyu depuis xoolal depuis deux mille dix huit bi ñu attaqué boo fa kenn nekk fa xam nga yan image lañ leen doon wax wan image boo fa bayot yi lañ leen doon wan mais ñoom nañ leen wan je les défie je défie toute l'armée nationale nañ leen wan ñoom benn rebelle bu ñu jàpp ci seen attaque bu ñu defoon contre Ousmane Sonko bi ak seen xam nga ñoom luñ luñ ma doon mujjee baabee fin bi booy xoola soo bëggee nag village yi dellu si foog ngeen tëj seen làmmiñ yi yéen tam da ngeen rëy làmmiñ foog ngeen tëj seen làmmiñ yi pour ñu arrêté mais ñoom gisuñu ci àll bi ñu benn base boo xam si te occupé fekk ñu ko maa leen wax yi nañ leen indi Salif Sadio te ñoo ne woon dañuy andi Salif Sadio noor ubbi ma gis leen yéen ñëpp publier système bi xool système bi nu muy largué Sénégalais yi dugal leen si Salif Sadio waa léegi ana ñoom Ousmane Sonko seen subvention yi ñu daan jot jóge ci état xam naa moom lañ jox militaire ñu ñu xeex ko Salif Sadio invisible xeexeex ko Atika invisible fan yi passé ne woon nañ dañuy ratissage mais laa jël drone yi jóg na ba sonn gisul sax fu ñit nekk àll bi amatul ñit di <laughs> Macky maa lay wax rek te 2024 tu veux la paix en Casamance c'est toi-même qui va démarrer cette paix là comment instaure la paix dans ce pays d'abord man samay prisonnier ci branche bu ma géré moo ñu bokk MFDC waxuma ñu nekk Dakar de ñu nekk Bignona di manifestation yi ñi ngeen jàpp bindal leen MFDC yaa demee élèves faut libere ñoo ñooñu faut libere ngir jëmmi Serigne Touba faut les libérer seen yoon nekku ci jàpp ngeen ay jigéen xam nga Dakar ñu ngi naan ay jigéenu biir ngeen jàpp yéen am na koo leen jàpp jigéen soo dafa wasin bi ñëw ne dafa wasin ci biir kaso bi xam nga yéen man lu ma metti de information yi jóge Ziguinchor dañ koy bloqué mais yi jóge dakaar ñëpp commencé waaw waaw waaw c'est normal parce que noonu lañ ñu yaree ci lañ ñu nekk et ce qui est illogique te comme combat bi moment yi Sénégal la ñuy xeexal nañ leen jàppale seen combat rek ndax ñu suñu combat ça continue c'est pas l'état qui va l'arrêter non non non Ziguinchor actuellement bu Ousmane Sonko bokkul élection man région bi laa lay permettre ba Kolda ci la ñuy profité génnee leen yéen dëkk bi yéen ak seen armée jël suñu réew quoi coow li jeex. comme waa Dakar wala ñeneen ñi mën nañ supporter mais xam naa ne Mbacke su boobaa Touba ak Mbacke tam Macky Sall ma wax la de xam nga yaakaar nga ne seul la Casamance va prendre son indépendance mais billahi si Ousmane Sonko n'est pas candidat Mbacke. aura un nouveau gouverneur nommé par la population de Mbacké Macky Sall Fouta Matam y aura un nouveau gouverneur nommé par la population li ngay risqué nii sax xamoo ko maa ngi dégg nit ñi di jaxase naan Mali kan moo def coup d'état kan moo lii c'est pas vrai population bu ñëw demandé à ce que militaires yi jël dëkk bi et des militaires propres on ne veut pas des militaires sales ou des militaires bidons on veut des militaires propres nañ jël Sénégal ñun suñu branche armée ñëw ñu toog on va discuter parce que ñun ñoo mos a yore Macky Sall sécurité am tey la ñuy naan ay nañ ñaan jàmm te moom bi mu toogee ba tey Macky Sall mosul wax ak MFDC. secretaire général MFDC mu ngi fii en France dialogue bu mu wax noonu ci veille Korité bi waaw xëy na si veille bi depuis depuis ñaata at yow tam 2013 ba tey. 2013 ba tey vendredi moo tax gisuleen ma ma live démb ay vendredi vendredi si loolu laa nekkoon non on organiser xaw ma lan pour MFDC gauche droite ma ne leen déedéet allez chercher d'abord MFDC y a combien de branches les mouvements atikala là y a combien de fronts allez chercher ça d'abord man boobu mënuma si prononcer wu ndax man discuter avec l'état là ça ne plus kuy wax da ngay assumer lu ngay wax na ku nekk assumer te xam ne réew mi li fi yàqu yàqu na ba noppi xeex lañ jëm ndax ñu ko yore mëntuñ dem ci violence lañ ko mun teg boo leen seetaanee ñu tegu fa boo leen nelawee ñu tegu fa procès yi bu Macky Sall ne moom jiitew ko waxul dëgg Macky da ngay fenaat encore une fois affaire Sonko bi li ma leen wax rek si vous étiez des professionnel si vous êtes des professionnels bi heure waxatuñu booy bi mais nelaw ngeen ma noppi léegi assumer foog ngeen assumer ko comment ngeen jël ay civil bàyyi la ñuy teg ay deal te pourtant gars yi tey laa leen révélé leneen de Sonko xam nga lan moo ko dimbal agent de renseignement yëpp laa la à l'unanime depuis 2017 waxuma kii de 2017 koo jox si mission Sonko da koy xool ne moom waaye eh, yow ñii waaye moom booy bu ndaw bi kii lu muy def si politique kii du si nekk président ki kii jarul topp koo jox ci Sonko dafay remplir ne xoola fi muy dugg sax duñ ko lijjanti na oto bi daw rek nga bindu gauche droite ah kii du dara agent renseignement yëpp xam nga xam nga Sonko dafa mel na yàlla du ko muuroon benn affaire du ko nëbb mais sinon Idrissa Seck bi ñu koy daaneel 2018 Cheikh Tidiane Gadio bi ñu koy daaneel Alioune Sow bi ñu koy daaneel Pape Djibril Fall bi ñu koy daaneel bu doon cellules yi ñoo organiser ku yooyu bii heure Sonko du taxaw mais Sonko kenn mënu wax ñoom ci ñoom nee naa la pour muy claire waa APR waxatuñ ko kankuran waxatuñ ko dara dañ la naan booy bi kenn xamul lan la dëmm la ma leen c'est pas vrai yaayam teew ko soleil ndeyam teew ko soleil ku ñu bootee soleil dañuy dugal ci yenn tuuxi doone yi Bassirou Diomaye Faye kenn du ko bàyyi ndax nangul wax lan moo xewoon ci rencontre ba Idrissa Seck il ne va jamais dire ça à Macky jamais ndax moom si boppam yëgal na ni Sonko ne gars yi dañ la teg deal sa dossier Adji Sarr dara du ci dëgg gars yi dañ la teg deal nee naa ne dossier boobu chaque jour ma ñamal leen si benn te tôt ou tard di ngeen toog ñoom ñaar ñëpp ku nekk wax li nga wax sa morom te Sonko bi mu wérdee ba pare la ko tontontu bi ñàkk fay fayda la plupart idi Basirou la gën a waxal looloo metti état nag Basirou la Idrissa Seck gën a waxal ko Ousmane Sonko mais idi waxatul moment bi ce n'est pas lui qui Macky doxal soxla carrément di nga ma wax lu ma su waxal Sonko mu ne ko non affaire état laa ko doon jàngal affaire lutte te Macky xam na ne day fen conférence bi ce n'est pas vrai c'est pas Idy qui l'a fait imposé te da nga bëggoon rendi Macky nag da nga koy def muroog soow muroog soow ku ko consommer lu bëri bu yàggee da ngay jabet bu jabetee nga dagg tànk bi bii paa nag Macky t'as réduit à ta plus simple expression yow Idrissa Seck c'est honte nag c'est dommage billahi doo am cinq pour cent sa naar yi nga yaakaar nag nee naa leen idi troisième force baa koy fal troisième force mooy borom alal yi nationale yeeg yooyu te fàttaliku leen sama gars yi idi premier ministre la woon idi def na xale Cees yëpp ay militaire idi ñaata kilifa armée la yor ci biir yoo xam moom moo leen def ay kilifa dans l' ñaata kilifa armée la Idrissa Seck yor ci biir armée sénégalaise gars yi concentré wu leen ci fi ngeen jëm kii tey laa jël cent pour cent ni wax si moom pour xoola mu close débat bi ndax ñëpp ñu ngi ci wax Idi Macky Idi Macky dil du dil kii Idi dañ ko jekku def ko ay vidéo yónnee ko ko rend ko moment yi dafa noppi mais du dil moom on l'impose point final ça passe problème mu imam beeg Macky Sall woo Idrissa Seck xam nga ça se résout en quoi révision électorale bi mooy problème bi moment yi booy parce que sëñ Tuubaa révision électorale yaay problème bi te jours yi des ni da ngeen ko war a def comme màggalu Tuubaa centre yëpp fees jël jël jël jël jël jël pour ngeen mën a sax yéen ñëpp inscrire ñu ñu yokk rallonge sinon le système dañ koy dagg gars yi révision électorale bi moment yi moo ëpp buzz Ousmane Sonko Sonko mënagul wax ndax bu waxee yàq révision électorale yi bu waxee yéen ñëpp jubileetu doon ay Baye Fall comme Sénégal ñu ñëppay daanu leer naan yo pro wax na pro après ngeen amaat retard ci inscription yi Sonko dina noppi ba le 6 passé buy def déclaration itam le 6 si guddi la koy def pour ñu préparer procès le 8 bi léegi nag ñun ñooy doxal réew mi nu mu ñu neexee yéen jeunesse bi yéen jeunesse bi yéen jeunesse bi ngir yàlla éveillez vous dem leen inscrire teg seen bopp prison yi dinañ tëj mais bu leen def mutinerie bàyyi leen rek ngor ñu ngi xeex noo pour ma tëj ngor xam nga lan moo lan moo xam lan moo métti waa waa waa ngor séddoo bi moo am ñu séddoowul séddoo bi dafa am ay juges yoo xam ne ak colonel yoo xam ne séddooguñu mais gatsa gatsa bi waa Ngor teg yàlla leen yàlla yokk gudd fan waa Ngor te li ngeen xeex yéen a yegg si yoon gendarmerie bu war a jël trois cent mètres carrés war jël six mille bëgg a jël six mille huit cent mètres carrés par force bañ leen Moussa Fall moomu fa Moussa Fall ko imposé de te yéen ko ko def mais nag c'est bien fait xam nga ma lan moom ma commencé neex ñi daan classe xale yi jaraaf jaraaf toog fi woon naan xale bi Sonko dafa bëri ay tey da jaraaf laa gis mu ne ku mbéj da nga koy mbéj ba wis ko koŋ yeneen ah! yéen ne woon Ousmane daa bari coow loo te yéen woote coow tey tey yéen yéen waa Ngor te yen waa yéen am na lébu yoo xam ne yéen ci dil bi lañu bokk waaye lan moo tax lebu yooyu bokkuñu si mais ñoom Diouf saar dem leen andi taaj ñoom ab Ablaye Matar Diop mais ñoom ñoo tas Ngor Farba Ngom ñëw jaay leen doole ndax ma may moom moo ay mais këram gi man li ngeen ko taal nii da ngeen waroon wut bomb wala affaire yu explosé booy mine seerul ay trois cent cinquante lay jar mine yi ay trois cent cinquante lay jar mine trois cent cinquante lay jar genre kër Farba Senghor yi day jaral xoola mine mine buntu këram muy génnaat kat katam affaire bi tëb mu jeex ku nekk Farba Ngom du moins billaay da koy jar mine trois cent cinquante lay jar wala ngeen defar yoo xam ne bu danee ci otom bu dóoree jeex na c'est que je ne vous le des personnes à éliminer dans ce pays billaay il y a des personnes à éliminer mun ku ci mën na Marème Faye Sall nii mu rëcc fii bàyyi leen di ñu reetaan naan sénégalais yi feebal naan Marème présidente dinañu xoola nag ba Macky Sall du présenté wu jiital Marème Faye Sall débat boobu du ma ci dugg ndax man ma ko gëm loolu nanguma ko gëm maa bañ ndax Marème Faye Sall mën na ñëw ak sénégalais yi bëgguñu ko je ne vais jamais croire en ça jamais de la vie ngeen baal ma de mais wax ji franco lay na karsi man de sincèrement mënu guma dugg ci procès huit bi tànk carte yi ma maay xaw ma ñaata carte la gars yi amagum parce que xam nga fan lay neex ñu am dix millions onze millions yi man nee naa leen foog ñu yegg lu kenn mosul yegg jour vote ñu vote lu kenn mosul vote gars yi c'est pour la première fois Sénégal wala fal président ay eh, waay waay waay waay Sall ngir yàlla Macky Sall xam nga maay lan mooy sa objectif li laay war a suuli ngir yàlla li nga waxoon 2012 dëkk bu joxasoo jox ko militaire ñu organiser élection te ci bokk Macky Sall li nga waxoon Ablaye Wade laa lay waxaat bi ñu la ne deuxième tour ba nga ne non xaar nga dem négocier ak moom mais ñeme woon amoo fit tàppet nga yow nga tam tàppetu xaraamata njaay nga ki toog démb di wax noonu ragal la ñun xam nañ li ñuy wax ragal la yow yaa ne woon yow Ablaye Wade lii sa wareef lii sa rëy-rëy ci biir Afrique xam nga mooy la Macky Sall ngir yàlla Sénégal 1960 sëriñ si ñoom mànkoo sampal ñu 1960 nekkul ñu ñoo fal Senghor Sénégal falul Senghor lay leer sëriñ ñi ñoo falal seen bopp président abdu Diouf Senghor a ko fal est yaa ngeen may suivre Ablaye Wade jéppi abdu Diouf moo tax ñu fal ko yow jaxasoo nga war ñi nga àndaloon dem di wër ne maay waaje ñoom ñett nee nañu maay waaje moo tax ñu toog di ma xeexle Macky loolu nga doon wax ci campagne nga ne opposition baa ma ñàkk sama ndey li la doon wax ci àll bi dafa doon wax opposition bi ñoo ma yónni ñoom Idrissa Seck ak ñoom diw ak ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Bathily ñoom ñoo ma yónni mu ñëw campagne si ndax maay xale bi ñoom man li ñu bëgg a jiital ñoom ñu ngi xeexal ak Ablaye Wade lii nga doon wax ba gagné élection bi Macky Sall si fen nga yàgg toog te lu ma si metti nag jàngalekat yi ñoo ko ci gënoon topp di dóoraale di fenaale ah parce que affaire bi dóor la de bu ñu bëggee fal ñit foog ñu dóor ñun ñëpp nii la ma doon campagne gaa yaa ngi ngay ma toogal Dakar di ma xeexal man maay falu te effectivement noonu la demee te Idi wax na ko Idi dafa dugg ci détails yi ndax moom it dañ ko xoj mais pourquoi pas yow Macky tey munoo jël tey tey l'armée def comme Abdou juuf comme yow da ngay toppandoo Abdou Diouf depuis bi nga ñëwee jëlal militaires yi jox leen ñu organiser élection pour la première fois Sénégal wala fal président xam nga lan moo neex bii pa Macky Sall yow bill deux xam nga moom mooy lan moo ma métti li ma waxanteeg sànq benn waaye nee naa leen gis nga Macky Sall mooy directeur campagne Sonko moom mooy campagne Sonko pour mu gagné lii non Macky Sall il le fait espérer Macky foog naa ne non man affaire bi commencé na jaxasoo sama bopp. parce que tey Macky tey bu libéré woon espace bi ne moom bokkul rek politiciens yëpp tàkkandoo est-ce que foofu chance Sonko yëpp day dajaloowaat ah! mais APR soxor ak nul moo leen sonal nox soxor soxor soxor. mais Ablaye Wade ñun 98 dañ ñëwoon 1998 dañ ñëwoon du fi nekk président mais bi ko gars yi jëli jee mais Moustapha Niasse il a failli passer mais Abdou Diouf Moustapha Niasse wala Djibo ko jàll URD wala AFP jàll non non non il a préféré Ablaye Wade ñëw mu ubbi bunti manifestation gars yi di ko gunge ministère Abdou Diouf ne militaire yi bu leen policier yi bu leen tiré lacrymogène ñu ñëw bloqué ñu poste Sandaga noonu ñoom Ablaye Wade dem déposé ji jour bi muy jàmm loolu fii la ñu fekk Abdou Diouf noonu la ko doxale woon pour jàmm am si réew mi yow Ablaye Wade yow Macky Sall ma dem Diémé man ma jël Diémé dégg naa léegi marié nañ mooy ki remplacé protocole bi Bruno Diatta yow bu la Ablaye Wade bëggoon noq noq na la bi nga ko violé sa bureau en tant que premier ministre noqoon na la bu yàgg bi nga ko yéegee sa bureau en tant que premier ministre noqoon na la bu yàgg yenn yi kenn du ko wax mais moment yi da ngeen doome xaraam yi foog ñu wàcc ba si yéen tontu leen pour yéegaat niveau bi comme début débat bi dama ko yéegal fii maax yéen ay tontante ndax dama gis ku nekk ngi fël di ñëw ñu xamul di wax li ñu xamul bëri te des fois xool dañuy préféré noppi gis nga gars yi li ñuy jiñ Sonko yëpp gars yi ñun moom dañ ko ko dóor Ablaye xool xoola jàpp ko fa la grandeur bàyyi mu sedd ndey saan ndax dafa ne li bokkul ci politique Abdoulaye lu muy xaja xaja xaja loolu xamoon na ko lu bokk ci politique ak lu bokkul ci politique tànn que ñii nag xamuñ si loolu dara gars yi billahi wallahi ñu bëri ñu ngi toog ci télé bi di défendre Macky Sall ay booleen leen gisee vidéo yi leen Macky Sall xojee boo leen gisoon vidéo yi waa APR xojee gars yi APR yéen salte ñoom mu ngi leen jaral ñu ngi saaga ndey doomu jàmbur bu nekk fu mu toll nii xam nga man Alioune Sow keroog dama def erreur live saaga ko mais gars yi yónnee mu deux vidéos ci biir bureau muy bokkam caaf Alioune Sow yow. suñu biro yi dañ leen ko jox pour ngeen di yéeg xale yu jigéen ñi promotion canapé wala dañ leen ko jox pour ngeen job ñun ñun quest qui se passe dans ce pays ba léegi ay vidéo la ñuy chantageante quoi vidéo ngay chantageante vidéo eh tëjal sa làmmiñ vidéo baa ngi eh tëjal sa làmmiñ vidéo gars yi eh, takk leen seen fit yéen it yéen ñi ñuy vidéo takk leen seen fit na ko malgré vidéo nga mel jël leen seen responsabilité na ko mënoo def troisième mandat génn gouvernement bi ba xam lu mu ci mën takk leen seen fit les faits sont déjà là vous l'avez déjà fait point final maintenant takk leen seen fit assumé mais da ngeen di toog si suuf bëgg ne non ma ki doomarab la ki vrai imbécile la ki vrai lâche la bu mu leen gisee si télé bi ngeen ne non ngeen di défendre troisième mandat mais man je me mais surtout ministre bu boobu te mu dëkk Kaffrine moom la wax mu ne way way way effectivement il n'a pas le droit de faire un troisième mandat gémmiñam bu mooy ndayam boobu mais bu kër dama ko gis télé moo ko Aliou Sow muy defaan troisième des fois na gis nga lii moo may geddaloo des fois lii moo may geddaloo da ngay wax ak nit même pas vingt minutes mu dem toog télé nga gis ko muy wax leneen des fois lii moo may geddaloo man si politique bi lii rek may geddaloo nii lañ ma yàgg def di ma muuroo dañuy réunion dara ñëw ba ci kilifa bu ñu ko war a wax ñëppay rocceeku bàyyi lax coow li te man dama la koy yekk lii mooy Sénégal kilifa yu bëri dum leen nëbb de ñu ngi ah ah dañuy daw Pastef de kilifa yu bëri daañu dugg Pastef mais moment yi nag daa am lu leen tënk mënuñu si dara gaay li fi weeroo bëri ndaxu akbar Sénégal a bëri ñu ñàkk fayda yolom géeñooy ñoo fi ëpp xam nga yéen waxi oyof sër ngeen di wax mais yolom géeñooy yee fi ëpp woyof sër yi téeméeri yoon yoroon ngeen géeñoo loolu suñu kilifa réew ay juge boo xam ne dafa bañ wax fay ñu ko sax xaalis cim yow ab juge fay ñu la xaalis yónnee la vidéo te léegi xam nga gars yi bu ñu koy def danga naan booy allo defal ma tel nga bañ ñu ne la ko tak tak tak juge kay taaxaar di di ngeen jékki-jékki rek ay lennam fuité ci internet bi nañ leen dem vous n'avez rien compris ce qui se passe dans ce pays moytu leen seen bopp surtout yéen vous les jeune cadres la les jeunes nouveaux cadres là di rebelle wu xam leen fu ngeen di teg seen tànk vous avez l'avenir devant vous munoo am 30 ñu noppiloo la ba keroog nga war a am 60 ans donc tu vas perdre ta vie gars yi kilifa yu màgg yëpp jigéen lañ leen naxee ak alal jigéen lañ leen di naxee moytu leen adduna yéen les jeunes cadres yi mooy déggantal téléphone ak yëpp moytu leen adduna ndekete ndeysaan ñu bëri ñu ngi nekk si ki mu bàyyee jàmbur fekk ñoo ko teg seen bopp ndax dañ leen dugal lu neex ñu cof ko lekk loolu rek laa leen doon wax tey tey moom il fallait que mu dugg ci gaa yi carrément dugg ci profondeur yi parce que saa yi da ngay wax ñiti naa la noo kenn jotul inf kenn jotul inf ku daan bokk di dil soxlaw ma information kenn ndax ki may woo direct xam naa ko ki ma naan ki may woo direct xam naa ko grand yi leen di woo yëpp ki may woo direct xam naa ko dee leen laajte rek tey secret bi ma leen jox ni ci Idrissa Seck allez vérifier ça vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe lan moo tax muy def yëfu lâchetem bi ak di wax Idrissa Seck même quand il parle vous sentez que c'est pas lui mais tey comme jox naa leen secret bi gérer leen kook ñoom ngeen baal ma nag si wax ji tey ñagas na ndax mosuma dugg ci vie privée mais tey il la fallait